waaw waaw nee naa leen bu wax ji bëree ñoom la waaye bu jëf ji bëree jotaat sa kàttan la ayca moo ngi noonu nee naa leen jotaat sa kàttan di garab bu ñu defee si suñuy reen jotaat sa kàttan di garab bu naturel te efficace yow mi nga xam ne da ngaa am néew kàttan demal jëfandikoo garab gi di nga jotaat sa kàttan yow mi nga xamante ni da ngay gaaw a daanu bëgg jot sa kàttan jotaat sa kàttan moo ci gaaw jëlal garab gi nga jëfandikoo ko di nga gis résultat yu leer jotaat sa kàttan kër gi mën a neex lool ba jéggi dayoo yow mi nga xamante ni jigéen nga amoo li nga xam xamante ni mooy bànneexu ci néegu sëy jotaat sa kàttan moo ci gaaw jëlal garab bi nga jëfandikoo ko bu ko defee foofu mën a neex waaye yow mi nga xamante ni da ngaa amee hémorroïde moo xam externe wala interne jotaat sa kàttan moo ci gaaw waaye képp koo xamante ni bëgg ngaa jëflanteeg waa ji adresse Mbour école 3 numéro yaa ngi noonu si suuf jotaat sa kàttan mooy neexal kër gi kër gi mën a naat. Touba Taïf suba ñoom ñoo woote fi nga xamante ne mooy arène nationale incha allah Boy Jules Agogo Boy Jules daw na ërtël waaye Agogo nangul taxaw moo ngay déplacement latéral Agogo Boy Jules sànni na Boy na Boy Jules na Boy Jules Agogo Agogo moo ngi sur place Boy Jules Agogo maaru kawo maaru kawo Agogo Boy Jules Agogo taxawul moo ngay déplacement latéral nangul taxaw sur place Boy Jules daw na dóor Agogo jël na tànk Boy Jules waaye génnaan na Agogo Boy Jules jàppante nañ Agogo bo Jules jàppante nañ lan moo nar a xew ndeysaan ñoo ngay ñoom ñaar Agogo jàpp na ca loxo droite ba ca ginnaaw ngeen bu Boy waaye Boy Jules contré na ko ca loxo gauche ba ñoo ngay tamante baaraam agogo Boy Jules nangul bàyyi loxo bi la da ko bëgg mbot wala Boy Jules moytul moo ngi ko bëgg a kal moo ko bëgg a kal ñoom ñaari mbër yi am na ku si nekk jàpp nga ca benn loxo ba kal na ko la moo nar xew Boy Jules kal na Agogo ñoom ñaar ñoom ñaar ñoo ngi koy kalante de Boy moo ngi koy dóor kal ba lal lan la maa du ko xatar bi la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah lan moo nar xew aka ko mooy Jules laa ilaaha illallah njaax la wala arbitre bi sifflé waat na ñoom ñaari mbër yi laalante nañ ndeysaan won ginnaaw Agogo moom lañ jàkkaar ñoo ngay tamante baaraam Agogo daw na Agogo jàppante bi la bëgg Boy Jules daw na taxabaa la ko xatar bi na laa ilaaha illallah oh jël ba laa ilaaha illallah lii lan la lii lanati la Agogo jël